Euh, gis nañ ne euh, li mel ni bi dañ ko ci Excaf. gis nañ mm. ne groupe des ay immédiat plainte bi ñu fa sa sànni gis nañ ne ay compte euh, compte de presse bloqué mm. gis nañ fi coowal impôt gis nañ fi Ousmane Sonko mu jël chargé presse bi seen comportement invitation bi fan la presse sénégalaise jëm yooyu boo ko boole gis nañ ni benn chroniqueur di wuyoo Cheikh Bara Ndiaye nee na Maïmouna Ndour Faye day perte cette TV yow yëpp dégg nañ ko ay jafe-jafe xamante ni ci presse sénégalaise la daanu. Mhm. xam naa ne daal fu mu ne nii moom xam nga régime bu ñëw da am say sorcière. sorcière waaw yooyu Cheikh Seck. <laughs> waaw man dafa mel ni ñun dafa mel ni ñun dafa am ñun dafa am lu ñu def. le projet quoi day am na def le projet <laughs> waaw ñun dafa mel def le projet te yéen def na dara le projet te pourtant hmm. xam nga gars yi nee nañu presse bi moo daaneel Abdou Diouf waaw mais xam nga kenn mësul wax ni presse bi moo daaneel Abdoulaye Wade hmm. yaa ngi dégg mhm. mais wax nañu fi Macky Sall <coughs> Macky Sall Macky lu mu daj ci presse bi

Nous, sur le régime de Macky Tout le temps, tous les jours. D'ailleurs, du du du pourtant nous yegguñu une filles. Nous, ñu journaliste journalistes, nous du temps de Macky Sall dañ koy compter ils nañ sont pas nombreux ah bon Papa les gars. mais yow yow yo, donc wuñ xam nga man li ma daan def temps magi sa Sall su ma defoon genn wàll kenn dootuma séen ci régime bi hmm. non dama lay wax dama lay wax y a les vidéos qui sont là d'accord le procureur de la République def na émission chargée Ousmane Kabiline diata mais hmm. rebelle la dañ ko jàpp ma def conférence def émission fu ne Mhm. ne limu wax du deug te comme sax jotum xana le procureur kagn bu wo defee une déclaration comme ça nga jël talay pendant une semaine xana yow au moins dañ le jéem wo sax kaw la titre hmm gis nga kay ma xam la démocratie dafa metti démocratie ki koy ki ko mun moy ku mun ni ni xol tay tay langage bi yëpp mooy ñun amuñu opposant yeen presse bi yéenay suñu opposant mais ñu la démé dé wa wa légui non la presse n'a pas changé. la presse n'a pas changé ñom ñoo changé position. Hmm? la presse hmm. dafa manque rek da ngay déglu rek la presse n'a pas changé xam nga lu tax. Hmm. même pouvoir bi am presse bi amone en 99. Hein? du temps de Abdou Diouf mais pouvoir boobu presse amatu ko. yow tey communiqué bu génnee boo yéexee tuuti réseau sociaux yi ñoo la koy njëkk jot muy dëgg bu yàgg ba l'exclusivité des communiqués c'est la presse léegi ñëpp ñoo nekk au même niveau maanaam cest à xam nga nga toog naan damay jël presse bii pressé leen yaa ngi dégg ba duñu mën a ci dara mooy ci sa trompe de temps léegi affaire bi dootul presse aujourd'hui avec l'ouverture de l'internet ku nekk presse nga ci poste waaw léegi yeewu suba teel Excaf télécom am ay droit ñu yeewu suba teel foqati ko si Il jox ko TDS lan la y a wax man Il y si yow bokk Il keneen ak keneen bokk Il hmm. parle de banditisme ñu dem ba bokk banditisme d'état nga yow suba teel Maïmouna Ndour Faye ah mm-hmm. yéen annoncé déjà dans vos cercles que nous d'une perspective. cette ah. TV waaw nga mm-hmm. organe de presse yi ken dot len fi joxati une convention suspendez toutes les conventions waaye ko amul publicité amul convention journal nga koy jaye 100 francs fay imprimerie trente cinq fay vingt francs distributeur bi ba pare mu des sa loxo lamb mais loolu loolu est-ce que bu ñu continuer noonu on une presse non yow xam nga tey jii man dama yor école mais secteur bi gën a pourvoyeur d'emploi hmm. moi de la presse. mais j'ai gagné 30 étudiants mm. en moins de 6 mois, nous avons placé les. Dès les étudiants et dès le soir, de monsieur, quand j'ai fait 10 mois, j'ai remboursé toute ma scolarité. Mais quand dans secteur, nous avons un pourvoyeur d'emploi. Là où tu peux mettre parce que man xam nga yoruma école kese damay jàngale ci école yi. moo hmm. tax gars yi naan yow da ngay toog muy dox. man leen man six heures du matin laay yeewu di tëdd minuit. <laughs> en tant que su ma nekkoon États-Unis foofu ñuy wax time is money. Hmm. milliardaire laay nekk ndax man du ma toog damay dégg. dégg nga oui effectivement. dañuy gis nga boo demee boo demee ci ci école bu mag nga xam ne yaa a différentes filières ñuy xool le taux d'absorption de diplômés. parce que j'ai rien qui marketing am li, am qui, euh, euh, qui logistique banque assurance qui am 100% c'est la presse mhm. journalisme communication Moi, am 100% d'absorption des diplômés parce que tout simplement il y a ce qu'on a maintenant des entreprises individuelles mhm tay man ak keneen ak keneen doonu ñu woon liggéey bu fi RTS kese nekkoon ak soleil. je te jure. dégg naa dégg. yaa ngi dégg. Hmm. mais léegi dafa am l' entreprise de presse dafa bëri ku si nekk am nga juróomi xale yooyu fay hmm. état amul vocation pour di rey les entreprises. Hmm. état vocation mooy jàppale les entreprises dégg nga wax baax.

je waa berté dama len dégg ñuy publicité ci ben radio c'est-à-dire BRT na wax sur 15 radios qui sont FM ñaata ci jox publicité duñu mot net c'est pas normal mais mais est-ce que yow yow mën nga dans un pays où les entreprises individuelles li ñuy dundé yépp nga téyé ko xam nga ils n'ont pas ce droit là parce que équité war na am parce que tay jii am kenn ko xamné radio bi lu mu ndaw ndaw c'est la radio communautaire de Grand Yoff lay déglu et que BRT bi dafa trans dafa dafa dafa dafa Grand Yoff mais tu crois que la radio communautaire de Grand Yoff là waroo ko jox ben miette de publicité yaa ngi dégg mais nga ne j'ai fait communication on a fait la communication oui, si BRT bi ni nii nii yaa ngi dé ñoo la ñaata rajo la benn rajo laa ko jox wala deux rajo laa ko jox mais loolu crime économique la. oui. c'est ces de choses yoo xam ni moom moo warul am dafa war a bi dafa war a am dafa war a am équité sociale parce que entreprise moom day enrichir la Sénélec est-ce xam nga l'entreprise de presse ñaata lay fay courant. day cher dama leen dégg kerook ñu ñëw ñu ne nos industries leen njëkk rey. c'est le coût de l'électricité de nous, ñu nous aussi les coûts de production les monnaies si l'industrie industrie da ngay les entreprises parce que nous ñu plus de 150 entreprises ont fermé leurs portes Ils ont doon industrie de l'autre côté plus de 500 entreprises de presse Nous bëgg couler mais est-ce que le gouvernement a une cohérence dans la vision Je ne crois pas. Merci beaucoup. Finjum, d'après eh, Mme Eta, les nouvelles autorités dafa mener dañ am jafé jafé presse Alors ben li waxone